bu bi nak dafa indi ay chopité, ay chopité yu bëri euh, coppite bu ñëk bi euh, loi bu bees bi distingué wul ben xeetu sachet plastique xeetu sachet plastique yépp lañu téré euh, loi bu bees bi dugul na téré li nga xamné ne moy mbusu mbuusu ndox yi yo xamné ne bokkuñu won ci li nga xamné ne moy périmètre d'interdiction loi 2015 loi bi dugul na li nga xamné ne moy système consigne moy euh, bouteille en plastique euh, loi bi euh, dugal la responsabilité élargie aux consommateurs aux producteurs du moins la responsabilité élargie aux producteurs loi bi dugal na li nga xamné mom moy xétu gobelet yi assiette à jeter yi lepp lo xamné polluant la té ñu ragné ko loi bu njëkk bi figure ou nekku ci loolu moo tax ñu introduire ko euh, ñu fexe nag dans le cadre li nga xam ne moom mooy le pro le programme zéro déchet bi nga xam ne son excellence le président de la république bëgg na ko pour que euh, sunu capital set euh, sunu ville yëpp set sunu àll bi yëpp set moo tax il faut d'abord que ñu xeex li nga xam ne moom mooy pollution plastique bi parce que bu ñu xeexee pollution plastique bi jàpp naa ni dinañu xeex lu bare bare bare bari euh, ci li nga xamné mom moy xétu déchets yi de manière générale. le 20 avril. loi bi dinañ ko appliquer parce que set nañ ba set mom moy ñëriñu askan bi dañ japp né loi bi pour que ñu mun ko appliquer il faut que ñëpp japp ci il faut que ku nekk euh, wàll bi nga fété nga euh, taxaw ci bu baaxa baax pour que li nga xamné mom lañu la mom lañu

Euh, ci secteur économique yëpp dafay indi ay ngaañ ci walu santé également wax naa ko sànq loolu moo tax nañ ne euh, loi bi euh, loi bu am solo la parce que dafay ñew ar population sénégalaise dafay ñew jàppale ñu pour que sunu réew mel ni mu wara mel ci walu ciet mais également mel ni mu wara mel ci walu environnement et la protection